mbokk yi Wuro dem na këng waxi mag dem daj taali tànk war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb dox ci diggante B am double V am concorde ndeysaan ñoom ñaari xale yi benn double mu ngi nekk écurie ba da jonn concorde nekk écurie Kër Mbay Fall ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu benn double V comme góor ma ngay génn comme góor xanaa xamoo lii tere nañ ko ci lamb génn na saako yi jël na avertissement mbokk yi arbitre bi sifflé na dimanche 5 juin 2022 stade Iba Mar Diop dixième édition delloo njukkal président Abdoulaye Wade ndeysaan suñu papa sëñ Modou Niang moo ñu fi woo BMW moo la féete càmmoñ Concorde moo la féete ndijoor Deme cokkaas na Concorde fayu na Deme double V Bada Jonn la nekk Concorde Kër Mbay Fall ñu ngay lewaatoo Deme ko ah Deme Concorde cokkaas na Deme cokkaas Deme fayu na coup bi dal na dal na dal na grand combat bi ñu sumeeku arbitre bi trois avertissement pour Concorde arbitre bi woowaat na leen arbitre bi sifflé na mbokk yi Ben Double moo la féetee càmmoñ Concorde moo la féetee ndijoor ña ngay leewaatoo gannaaw bu Concorde demee ci arda ba ba am cokkaas na ba am cokkaas na mbaa door mu daanu du am comme corde beem beem day yondu bu déggee mu door comme corde beem beem comme corde beem duul be comme corde ñoom ñaar comme corde cokkaas na beem déplacé wu comme corde li nga wàcc est-ce que ëppul beem dagg na loo atoo bi sëgg na ndax sëgg bu yàgg bi du baax wàccaat na day ñëwaat peut être ca kaw maa nga ci suuf day am moytu na coup bi dalul daa bëgg a jàppante ma ngay cokkaas boobu dalul comme corde sànniwaat na dalul ndaysaan BM ma ngay suul tànk ci suuf comme corde BM duul beej comme corde dóor na BM fayu na kuba dal na comme maa doo génnaat saako yi waaw dal na de BM duul beej comme corde comme corde sa garde bi BM bu dóoree danga koy day dugg ngeel jegeen jegeen ñii dañuy bokk so ah. dem mi parewul wala déet. Cokaas ab na. Bem double ba comme corde. door na comme corde door na. kër naa se gala yaa ngay dagg. Bem door na. Bem double ba BM double dóoraat na BM double ma ngay dox ci kawam BM ma ngay dox ci kawam lu mu nar dóor na BM ma ngay dox ci kawam comme corde BM comme corde fayu na BM double comme corde fayu hee ñaari xale yi ñu ngi joxe ah BM double ngi dox ci kawam ndànk dóoraat na dóor na ndaysaan benn double xeex bi mu ngi koy teg ci yoon comme corde ma ngay fayu comme corde benn double cokaas dalul esquive na moytu na xeex xeex benn double cokaas na comme aj na garde bi jege na saako yi comme na dangay génn dangay am carte avertissement door na ko dangay fayu gàllaaj ya dangay dagg ah comme que fi nga fayu sànq baax na de baax na BMW sës na ko comme que daa nar a génn saako yi génn bi arrangé na saako yi. butéel ba moom jeex na doo ko laajaat butéel ba moom amatul dara beem butéel ba moom la ca mujjee nekk jeex na ah da ngay laaj naan ndox xanaa waaye butéel ba moom wala butéel ba day ñëw butéel baa ngay ñëwaat de butéel baa ngay ñëwaat de ma jaaxal butéel ba est-ce que amaat na dara butéel ba est-ce que na dara. comme corde R4 ba ubbeeku bët bi nañ ko ko bu dee ba ñëwaat na non dañ cee defaat ndox lii butéel bi daa war naa quatre avertissement ndeysaan dox ci diggante BMW ndeysaan comme corde danga koy attaqué ndax comme corde dafa am quatre avertissement bu jëlaatee beneen ñàkk làmbam ndaysaan jokkaas na Béem aj na gaawal combat bi Béem Double Vé ndaanaan la ma ngay xool Béem Double Vé Concorde Béem Double Concorde moo la féete ndi joor cokkaas na moom Concorde cokkaas na ma ngay xaar Concorde jàppante moo la arrangé woon ndax ginnaaw kaas na ko sànni na téere yi moom Concorde Concorde bayam bayam cokaasaat na fay na ndeysaan combat bi du yomb da ngay cokaasante ñoom ñaar waaw dara mus ndeysaan géwél moo am solo ci lamb ndeysaan maa ngi gërëm sama coach maa ngi gërëm CNG maa ngi gërëm tëggkat waaye doo dégg maa ngi gërëm waykat mukk waykat bu amuloon ci lamb oh leneen la BM dagg na Leewtoo bi BMW kan mooy jël drapeau maître Abdoulaye Wade ndeysaan moom koy dóor tànk moom koy dóor tànk ndeysaan avertissement damay ragal combat bi mujjee foofu damay ragal combat bi mujjee par avertissement ndeysaan arbitre bi àtte na avertissement BMW avertissement ndeysaan ndam daan na am ndam ci kaw comme kor